كتاب وام القران الذي والقران العظيم الذي اعطيته واتنا في كيغا خامني سما بكان موغي شي اي لوخوم فاتحه الكتاب بي موم موي ا يالا واتيول شي تورات دو شي انجيل دو شي زبور تي سار بو ملني فاتحه الكتاب تي موم موي ا ندايو تيري بي موم موي القران بو ماغ بيغا خامني ا ak sabul masani wa sabul masani jurom ñaari ñi ak nga xamne dafa mag ay mbir ak alquran bu mag bi nga xamne mom moom la ma yàlla jox maanaam moom mooy sóoratul fatiha dañ koy wax alkaafiya tamit ndax loolu ndax la ndax bépp saar nit ki mën nako baña xam mu baña graw garaaw def fatiha fatiha mom boko xamé boko xamul do ndax da nga dul mën julli ndax lan xadisu Ubaadata ibn Saamit radiyallahu ta'ala bi nek ci Muwatta nek ci ñaar saxiix yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne la salata liman lam yaqra bi ummi alquran wala bi fatihati alkitab bi benn riwaaya kenn du julli maanaam kenn du am julli bu fekkente ne jàngul fatihatul kitab moo tax nit ki noonu comme moo tax rakka bu nekk fatihatul kitab daf ciy nekk loo xam ne daf cee war comme que nag mbir mi noonu la demee loolu moo tax fatihatul kitab daal lañ xam mooy saar bu mel noonu sinon am na lu ñuy wax almuawwazatayni mooy falaqeeg naasi ñaari musluwaay yi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam yaa Aysa radiyallahu anha nee na depuis que ñaari saar yooyu wàcc lépp lu mu daan muslu daf ko bàyyi jàpp ci ñaari saar yooyu al imam ibnu qayyim al jawziyya rahimahullah ci badaa'ul fawaa'id bind na ci sharh bu yaatu ci ñaari saar yooyu te introduction ba mi ngi koy mi ngi naan ñaari saar yi de nit nit ñi soxlawee ndox ak ngelaw maanaam ni ñu soxlawee falaq ak naas moo raw ni ñu soxlawee ndox ak ngelaw ci ku xam vraiment maanaa yi nga xamante ne moo nekk ci biir ni ki noonu noonu maanaam yaatal na ko vraiment ci biir ci euh, ci téeram boobu Badaa'ul Fawaa'id rahmatullah alayhi bi rahmatihi al-waasi'a والله الله الله اوكي باي مسلم تي دكتور ندا فوالا ندا فا لا خي ماس ريك اوكي سيما دا ما جاتوني ابنا اكيد ايبنا لي اليوم اكملت لكم دينكم واه اليوم اكملت لكم دينكم واه ما يغالوني موي ايب مجي وات اه ايب بوبو مو مجي وات تي لوي تيرال اتي isa jaa moo mujjee wàcc comme saar aaye boobu moo mujjee wàcc ci luy tëral atte te ginnaaw loolu ay atte tëddaa na fi loolu moo tax ñu bëri ñuy tegtaloo naan way nangam bi daal ndax al yawma akmaltu lakum diinakum aaye ba wax na ko ne matal nañ seen diine déedéet daf la daan te pourtant ginnaaw bi am na ay atte yeneen atte yu ñëw parce que loolu am na cinq mois après yenn saa sam ci la doog génnee àdduna ay mbir yu bari doxaat na fi mais aaye moo mujjee wàcc ci wane ni léegi nag atte dootu wàccati loo xamante ne daal yu mag yi yu mbiri leer yëpp am na parce que lan aj aj aj mooy dernier pilier wu l'islam bi juróom yooyu te jour bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ajee ba def arafat bisub arafat boobu ci la aaye boobu waa ci ajjuma la arafat et cetera nga xam ne ñëpp daje nañ nag voilà bis boobu nag mu ne mat na ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nag ne yàlla ne ne gars yi est ce matal na ñu ne ko ankay ah, mu ne allahumma shahid yàlla seedal ñëpp xam ne yàlla seedal na léegi euh, aaya bi mujjee wàcc complètement complètement complètement mooy aaya bi nga xamante ne moo nekk ci suuratul baqara bi mu naan wattaqu yawman turja'una fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu ragal leen yawman bis bi nga xam ne turja'una ci ngeen di delluwaat ila allah jëm ci yàlla summa top nag tuwaffa danañu matal kullu nafsin bakkat bu nekk ma kasabat li mu doon jëf وهم لا يظلمون تيالا نبس بوب دو ني تون كين راغال لين نك جور بوب نغن موي تي دكو بريبار لين ني جور بوب يال نني يالا سام والله تعالى اعلم دا فاي لا كان مو جابو زكاه اك زكاه نياف نك لا تولو خمغا لولو كيسيون لا بو ياتو بو خامي تاني eh inshallah xamna peut-être euh, temps bi duñu may ñu léral lepp mais ala kulli halen euh, euh parce que azaka comme dafay génn ci juroomi mbir la day génn ci euh, euh, li nga xamante ne maanaam ay euh, xaalis la ak or ak lépp lu am seen valeur comme monnaie yi loolu benn la ñaareel bi mooy azaka day génn ci jur gi azaka day génn ci mbay mi mais du ci façon mbay yépp yooyu tamit li voilà mais ba pare azaka day génn ci li ñu naan urud de tijaara mooy bu may commercer bu may commerce sama marchandise yi dañ ci génn azaka juróomeel mooy li ñu wax ar mooy trésor yu ñu foree Euh, ci àll bi wala yu mel noonu trésor yi nga xamante ne kenn moomu ko ma ñëw par exemple di gas ab àll rek gis fa trésor kooku dama ciy génne damay génne un cinquième bi asaka mais benn yoon laa koy génne voilà ak yu noonu mais yooyu dafa yaatu parce que asaka buntu la parce que <laughs> euh, moom ci boppam ci piliers yu mag yi téere la euh, ni ki noonu mais nag par contre ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a am mooy ñi nga xamante ne ñoom la alquran tudd innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wa fi riqa ah. waaw wa wa wabnu sabil wa wa mu'allafati qulubuhum ah, am na wal amilina alayha wa ah, ah, am wa juróom-ñett daal la yoo xamante ne mooy faqir ak miskin boo ñoom ñoo dañuy dugg ci pauvreté ki ciy liggéey wa wa fi sabilillahi maanaam yoonu yàlla comme ñuy jihaad dañ leen koy jox tamit ñiy liggéey ci asaka ñi nga xam ne ñoom ñooy koy séddale ñoom dañ koy kii euh, euh, ak koo xamante ne par exemple dafa jugee ci am réew nekk réewu jàmbur mais amu fa alal donte am na alal ci réew mu mu jóg mu mu dëkk voilà ak euh, lan wa ñi nga xamante ne par exemple dañoo tuub wala ñu bëgg dégg nga xaw leen a desal ci l'islam wala leen ni l'islam daa généreux bu ko defee seen xel gën cee des ñooñu ah, voilà maanaam juróom-ñett la daal yoo xamante ne ñu ngi ci taw Tawba ñoom la Alxuraan tudd ci ne ñoom ñooñu ak ki nga xamante ne par exemple dafa bëgg gorelu dafa dafay waaw dafa bëgg jaam la bu bëgg gorelu euh, kooku tamit dañ koy jox asaka ah ñi jàngale wala ñi liggéey ci diine ah ñoo ñooñu bokkuñ ci de am na nag ñu ñu leen ci boole mais ñooñu bokkuñu ci daal bokkuñu ci li ay wax daal juróom-ñett yooyu la wax bii mooy dernière question day laaj ana la mën a def ba delloo ci benn mbokkam ci diine ji te fekk ba euh, nga loolu moom ku ko bëgg li ngay njëkk def mooy nga sellal sa yéene sa diggante sa borom parce que nit ki su fekkente ne ji moom sellalul yéenam digganteem ak boroomam euh, day jafe keneen maanaam di ko topp ci yoon bu baax bi loolu benn affaire la beneen bi li nga xamante ne maanaam euh, mën na ko def tamit mooy muy ñaan yàlla di ñaan yàlla parce que yàlla rek moom moo yor mbir moom moo yor xol yi di ko jàllar bi comme ni mu ko neexee bu fekkente ne sax na ci ñaan ko te mu dugg ci sax ci ñaan googu yàlla dina ko mës a indi benn bis ci bis un deux quatre jours dina ko indi niki noonu tamit euh, muy jéem a seet wax yoo xamante ne maanaam day day day dana maanaam di jéem a xemmem loolu nit kooku li nga xamante ne moom mooy maam di ko jéem a wan xéewal yi ko yàlla defal xoolal li la yàlla defal nangam ak nangam ak nangam ba mu ba mu gis loolu dëgg-dëgg kooku loolu bokk na ci liy yombal nit ki delloo si ci diinam bokk na ci tamit li nga xamante ne maanaam moom moo ko yombal mooy ngay fexe ba di ko fréquenter mais fi ngeen di fréquenter boo leen koy boo koy fréquenter ngeen di déglu lu demee nekk alxuraan ndax loolu day yëngal xolam da koy da ko yëngal bu yàggee léegi affaire bon yi dootu ko neexati. nit ki noonu bokk na ci li koy euh, euh, dimbali mooy masalan euh, ngay fexe masalan ba muy dégg ay waxtaanu waare. yoo xam ne day waare daal di wax ci yowmal xiyaam di wax ci ajjana euh, ci sawara ci yooyu yooyu du am solo parce que waxtaan yu mel noonu ak tamit di wax ci histoire ñu njëkk ni li nga xamante ni moom bokk na ci li gën a gaaw tax nit dellu si waat ci diine mooy muy dégg histoire nit ñu baax ñi parce que buy dégg histoire nit ñu baax ñi day daal di bëgg da leen daal di commencer bëgg bu leen bëggee day daal di bëgg mel ni ñoom da ngay gis naan muy daal di bëgg di topp yoonu nit ñu baax ñi waaw mais daal li nga xamante ne moom moo ci gën a gaaw maanaam moom mooy di ñaan lu bari ak tamit di fexe di ko yóbbu ci place yu baax yi waaw ak tamit di fexe ba muy bañ euh, di di di ko xiirtal muy bañ di dem ci place yu bon yi ak place yoo xamante ne ay àndandoo yu bon yi daal mu fexe ba xam danger yi nekk ci àndandoo yu bon yooyu moom ba mu moytandiku leen yooyu daal ñoom ñooy euh, ci gàttal bokk na ci yi nga xamante ne dinañ gën a dimbali nit ci euh, yoon boobu ak comportement bi na am mm, voilà nit ki voilà mu am comportement bu baax par rapport ak moom waaw c'est-à-dire euh, parce que loolu mën na ko redéfinir aussi waaw xam nga nit ñi à vrai wax dëgg yàlla benn affaire am na foofu maanaam nit képp koo xamante ne da nga koy wax lu baax mu defee ne da koy forcer loolu mooy nit ku bon la ah oui loolu lay tekki mooy nit ku bon la nit bu bëggee xam ba xam baax na wala baaxul na xool waxu yàlla ban poids lay def ci moom su fekkente ne waxu yàlla amul benn doole ci moom mooy nit ku bon la bu dee yonent bi sallallahu alayhi moo wax ak ak Jean la wax ak Samba Ndiaye moo wax ñoo yem ci moom mooy nit ku bon la parce que nit c'est vrai jullit jullit bu déggee ni yàlla nee na dégguloo li li Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu iza sami'ta allaha yaqulu ya ayyuha alladhina amanu fasghi laha sam'ak imma amrun imma shay'un yu'maru bihi aw shay'un yunha anhu bu fekkente ne dégg nga yàlla ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yaa ayyuha alladhina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu mu ne na nga jël sa nopp bi nga taataan ko soit lu luñ lay digal la lu lay jariñ wala lu ñu lay teral la lu lay lor ah parce que imaginer jullit boo xamante ne waxu yàlla da koy déranger loolu mooy nit ku bon la loolu moom il faut pas ñuy naxante ci loolu et puis képp parce que dëgg nit ku baax ku nekk day gaaw day wommatu ci dëgg waaw même bu ko jëfewul en tout cas au moins dina d'accord ni lii dëgg la te man war naa topp lii war naa ko topp dina conscient ci ne war na ko topp managuma ko nag ndax sama bakkan ndax maanaam ah, ah, sama bànneexu bakkan yi ñoo ma noot sama wàññeeku doomu aadama kooku beneen affaire la mais waxu yàlla dina dérangé déranger loolu mooy nit ku bon la kooku kooku mooy yàlla moo tëj xolam xanaa déggoo li alquran wax inna alladina kafaru sawaun alayhim am lam tunzirum la yu'minun lan moo tax xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim yéeféer yi maanaam benn catégorie ci ñoom nga waar leen nga bañ leen waar moo yam ci ñoom mais moo yam ci ñoom la wax waxul moo yam ci ci yow yow moom il faut nga expliquer leen mais ñoom moo yam ci ñoom nga wax leen nga bañ leen wax ñoo yam ci ñoom mais nag yow dégager ses responsabilités ndax lan yàlla moo tëj seen xol xatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim te képp koo xamante ne day dégg waxu yàlla ba pare du ko bàyyi xel mbaa mu bañ ko na moytuñu ko parce que boo moytul yàlla day jàllar bi xorom da koy tëj comme ni alquran wax wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadarahum fi tughyanihim ya'mahun yàlla ne boo gisee ñii ñu ñu bëree bëri comprendre luñ secret boobu am na ñoo xamante ne mënatuñoo gis dëgg mënatuñ ko nangu c'est fini lu tax parce que dañoo dégg dëgg ba xàmmee ko mais ñu bañ bi ñu bañee nag yàlla jël seen xol tëj ko wëlbati ko mënatuñ gis dëgg mënatuñ ko dégg noonu la leen yàlla punir parce que lan ñoom ñoo def fa lamma zaaxu azaaxallahu qulubahum bi ñu jengee yàlla ne aha léegi mu jengal seen xol ñoom tamit yàlla na yàlla sàmm walla sallallahu ala nabiyina muhammad maa ngi jéglu juste tax ma explication boobu c'est am li nga xam ne boo waxee ak am impression que ne yàlla mooy xooloo yeneen mais ils pensent que par exemple un Moustapha

je veux dire loolu lépp c'est xam naa ne Europe la ko ñëwee c'est-à-dire que yow mi nga xam ne ne en tout cas li nga xamante ne moom la la yàlla teg ñu bëree bëri foofu lañ defee erreur dañoo defee ne ñoom mën nañu jël ñëpp dugal leen ci diine ji mënuñu ko voilà loolu benn affaire la yeneen bi sallallahu alayhi la xal la daf ñu ko la allaka baaxi woon nafsaka allah yakunu mu'minin hmm. xëy na yow yaa ngi bëgg a rey sa bopp sax parce que ñoom tu tuubuñu mu ne fa la xam nga la la ko inna qad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun fa innahum la yukazibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun mu ne yàlla ne ñun xam nañu ne ñom li ñuy wax yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf lay attristé daf la nakar da lay tiisloo mu ne waye xamal ne ñoom weddiwuñu la xam nañ ni li ngay wax dëgg la de dafa fekk ne nag tooñkat yi ñoom ñoom ñooy lànk waxu yàlla yi aaya yàlla yi loolu la moo fekk lool kooku nag ku mën a doon yeneen ti bi sax sallallahu alayhi bu bu taxawee wax duñ ko déglu yow la yow nag nga bëggee loo xam ne yeneen ti bi sallallahu a nekk na fi ba jóge fi réussir ko yow nga bëgg ko réussir yàlla nañu yàlla sàmm waaw lu yàlla wax suratul dañ ne dañ ne bu nekkee ci ci ci période yonent yàlla Muhammad sallallahu bi maanaam waaw waaw maanaam loolu moo waral sóor waaw maanaam dafa war a sóor xam voilà maanaam non c'est que dañuy indi dañuy laaj ay aaya ak yeneen dañuy laaj ay kii ay ay ay ay ay ay merveille ak yu mel noonu de toute façon benn affaire am na yàlla moom gisoo xool Cheikh Abdou Aziz Dabakh mooy bi ngay liir radiyallahu anhu li mu wax am na am na ci ñoo xamante ne buñu daan toog ci jotaayam question yu bari bu ñu ko laaj sax du ko mën tontu dañuy gis ne mel ni xamatul dara ñu laaj ko lan moo tax

dat loolu kep ku ko fokk defene mom dafa am hmm. euh, le ki nga xamne day hmm. attribué hmm. charisme ba kooku mi ngi nax bopam fofu la waru tambale nit ñi yalla moy ubbi seen xol di def sabab ñuy deg deg diko nangu ci benn place diko baña nangu ci benen place lolou yalla mo koy def yow len rek nga mo la war sabab lu te nga wax ne te nga wax rek ngir yalla lan la mais nak effectivement wax ko waxin bu noy mais bi bul ko dindi bul ci wañi benn xaraf bul ci ni virgule waxal dëgg bi ni mu nekk ni ko yàlla waxe ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bul ci dindi dara parce que bis boo jëlee waxu yàlla waxu yonent bi sa alayhi wasallam nga changé ko xamal ni jël nga sa bopp dugal nga ci biir safara comme li imam Malik rahimahullah doon wax bis boo demee ba taxaw ni da wax lenn ci diine yàlla bi tegal sa bopp ci kanam ci kanamu yàlla nga xam ne yaa ngi ci diggante aljana ak safara yaay xool xoolal ban nga ci bëgg dugg benn xaraf boo bëgg wax ci diine ji xoolal ban nga ci bëgg a dugg damay woyofalal nit ñi damay def li yow sa yàlla moom nga moo gën a baax wala yow yàlla moom ci boppam moo ni lii mooy àtte bi tey ngaa wax àtte boobu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ni lii mooy àtte bi waxal àtte boobu amma da ngay woyofal c'est lii boo ko waxee dañ naan da ngaa diir da ngaa ba tax nga change waxu yàlla ak waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy wa an yaqulu ala allahi ma la ma la ta'lamuna wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mooy di waxat ci yàlla loo xamante ne fa da ko teg ci ginnaaw bokkaale loolu moo gën a garaaw bokkaale waxal yàlla loo xam ne xamoo ko soit xam nga ne lii du dëgg mais wax nga ko wala boog xamoo ci dara mais aventure nga naan da ngay jéem a joxe réponse da ngay jaay xam-xam loolu moo tax ilmul nisful ilm mooy laa adri genn wàllu xam-xam mooy xamu imam ibnu ibnu Wahb rahmalah nee na man la imaamu Maalik rahmalah bu ma bëggoon bind téere ci question yi mu ne xamuma dinaa bind téere bu rëy yoo xamante ne dañ koy laaj mu ne xamuma Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma dafa am benn waay ñëw laaj ko benn question ni ko nangam mu ne ko ah laa adri xamuma de mu ne ko mais doo doo doo doo tee ngaa jéem a tontu mu ne ko hey xamuma waaja dem mu daal di jël loxom fon ko daal ni lillahi dirr aba abdurrahman yusalu fi dinillahi amma la yadri fa qaala la adri est-ce abu abdurrahman man bopam est-ce que laaj ko ci dine ji lo xamne xamuko mu ne xamuma waaw waaw kay parce que lolu lolu nak dafa xol subhanallah xol ñu njëkk euh ibnu abi dunya rahimahullah nee na moom tase naag fii ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi sa sallam soixante-dix personnes ay saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne dañ leen di laaj question benn question ñu koy puusante di ko buuxante ba mu dellu si waat ci ci def da ciy gis koo xam ne dañ koy laaj benn question mu mu mu lox ba daanu lox ba daanu ndax tiit parce que dani lii day ragal a wax loo xamante ne yàlla wax ko ko képp kuy wax dara ci diine lu mënti doon moo xam dañ la laaj wala laaj ñu la mais danga war a danga nga am looy leeral kese war ngaa jël sa bopp nga ne man damay wax instant bii nii ne bu nit bu yàlla doon wax ak nit ñi ñu koy dégg lii ma wax la leen di tontu lii la ma wax lay wax responsabilité boobu mhm. ah moo tax am na kenn ci euh, Cheikh Mouhamadul Amin Ash-Shinqiti rahimahullah euh, am na ku ma nettali na ma dafa am benn bis benn waay ñëw laaj ko ne ko et sëriñ bi masala sàngam nangam mu ne ko ah loolu xaw ma ko waa ji ne ko laajaat ko beneen affaire mu ne ah loolu la alam xaw ma ko wallahu alam wallahu alam dako ko wax wallahu alam mu laajaat ko beneen ñetteelu question mu ne ko wallahu alam mu ne ko mii lan moo tax te yow yaay sëriñu sëriñ yi fii nii yow yaa yaay seen sëriñ nan nga def lu sax nga naan ma xaw ma xaw ma xaw mu daal di jóg bët yi taax mu yëkkati loxoom ci kaw asamaan ni ko diw bul ma yan loo xamante ne attanu ma ko wallahu alam wallahu alam wallahu alam <laughs> ok yàlla nañu yàlla sàmm a alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in subhanallah